éducateur la bo xamanteni ni bàyyi ko annoncé won di won euh, yarkat kat baangi ñew man géwél la ba la yëgle la Seydina Issa ñëw na fi fekk limam am ay yum ko tegal manam boy xol entre bo xool rapport bi am digënté Seydina limam ak Seydina Issa man nga gis ni ben rapport bo xam dafa am digënté li ñu tuddé méthodologie ak application Seydina limam dafa tracer Seydina Issa méthode yi mu wara jaar Seydina Issa ñew li nga xamante dafa application bi li nga xamanteni mo gëna fess ci façon bi Seydina Issa di yaré Issa du koy yar di wax moom yaram dafa am ni te dafay créer cadre cadre boo xamante ni yow boo ci jaaree di nga am résultat yi mu bëgg ci yow Seydina Issa li mu njëkk a def mooy naka la mën a fexe dajalewaat li nga xamante ni mooy njaboot ak baayam Seydina Issa ñaar la fekk fekk na fi ñu àndoon ak baayam fekk fi ñi nga xamante ni ñoo di ay doom doomi baayam leen def moo tax li baas ñu ngi naan julee fa njool ma boole doom yowu foo moo tax Seydina Issa dafa amoon benn boo xamante ni dafa jëmoon ci ñi nga ni ñoo di taalibe baayam gisoon ngeen ñu naan kaan warista aadaban wa makramata Sayyidina Isa dafa amoon ay teggin teggin nag boo bëggee yar mag balaa moo yar dafay am ay teggin teggin yooyu nga xamante Sayyidina Isa wane woon na ko nga xamante ni ñoo magoon bàyyam gis nga moo tax ñoom respect bi ñu ko dolli bi ko bi ko delloo gis nga sëñ Maxtaar bi muy bind bu Bushra al-Muhibbin def ne bi euh, bindaloo na ma koo xamante ni mënumaa teggi ndigalam te pourtant Sayyidina Isa mat na doom ki nga xamante ni mooy sëñ Maxtaar mais gis nga respect bi que say Matar delloo ndax loolu lii ko waral li tax mu nga mën a téye communauté bi mooy da ngay jox ñëpp respect xam nga euh, bàyyi dun paate dafay wax ni Seydina Issa bi ko bàyyam di annoncé ci nga xamante ni moo di ci euh, ba ñuy def négociation ba ca ànd ak jal Seydina Issa daf bàyyam daf ne waa ji mu ngi ñëw xale bi incha allah bu màggee dina dimbali mag ñi dina dimbali gone yi dina dimbali nit ñi dina fekk nit ñi ci ñi yàq àddina ak ñi yàq àllaaxira moom Seydina Issa bi mu ñëwee li bi jëkk a fonk mooy li nga xamante ni moo di jàkk Seydina Isa nekkul woon nit koo xamante ni dafay absenté jàkk parce que pour nga yar nit ñi ci jàkk yow yaa war a jikk jikko joxe exemple bi exemple mooy Seydina Isa timis euh, fajar ba timis moo ko daan jiite booleeg teew googu mu daan teew ci jàkk ji dafa daan soññaal nit ñi képp koo xamante ni yaa ngi ci dëkk bu naa Isa teewee ci jàkk yow war ngaa xam ne yow da nga war a teew ci jàkk moo tax daawul absenté benn jàkk lool ci la yare génération boo xamante ni ñëpp waxtu jàkk ji waxtu julli ci jàkk ji la nga ko doon jullee nga xamante ni daan na nit daan mobilisation boo xamante ni bu am doole bo xam seyna isa defon nako ci li nga xamanteni pour fonkol ni ñu jàkk ben bi ci dess seyna isa dafa fonkol li nga xamanteni modi am équilibre diggante nit adina am ak li nga xamanteni ni moo comme ni ko Seydina Limaamu waxee fonk leen seen i tool yi ak seen i tool alaxira Seydina Issa bi mu xamanteni faluna li mu jikka def moy 1914 15 nga xam 5 ans la def ci khilafa baye li mu jëkk def moy yaatal créer li nga xamanteni ni moo ay tool Seydina Isa pour nga xamante ni liggéeyal baayam yomboon na ko lool fii ci ndakaaru mais gis nga dafa génn dem fu ñuy wax Gosaas xam ngeen ni sori ndakaaru mais pour pourtant li mu doon soxla ndakaaru amoon na ko dak amoon na ko amoon li mu soxla Gosaas amoon na ko ndakaaru mais teewul dafa yóbbu ay nit parce que léeg-léeg nit boo leen bëggee yar il faut nga isoler leen ak seeni waa kër dafa leen benn formation intense moom Seydina Issa defaloon mag ñi fi nga xamante ni moo di Gossas ba pare bi mu leen formé ba nga xam ne ñi mu jëlaat intégré la waat leen ci société bi Seydina Issa pour ñi nga xamante ni moo di ci cadre bi ñuy wax ba tey Seydina Issa dafa créé dëkkiwaay dëkkuwaay Seydina Issa dafa am benn nit bu mu bëgg a nit boobu mu doon modèle mel ni mu ko bëgg a créé Seydina saa def ne xaaral ma créé benn cadre boo xamante ni képp koo xamante ni génn na ci cadre boobu dafay mën a nekk nit ku mel nangam moom Seydina Issa créé benn cadre boo xam ne dafay jouer trois rôles dafay jour rôle benn rôle boo xamante ni ci côté social doomu aadama bi la am ci loo xamante ni ci côté intégration la am ci loo xamante ni ci côté li nga xamante ni moo di euh, euh, li nga xamante ni moo di psychologie ki nga xamante ni mooy dund ci environnement boobu. moo tax sëy Seyna Issa gis nga moo tax li nga xamante ni mu ëtt dafa am benn rôle bi nga xamante social la mooy nit ki fay dund bu fa jugee il faut nit ku social lay doon. beneen bi kiy dund ci ëttam yooyu bu fa juddoo dafay judd ko intégré parce que dafa dajeek yeneen i famille yeneen nit yeneen i waaso yeneen i xeet képp koo xamante ni itam dund na ci euh, environnement boobu Seydina Isa créé waat beneen affaire boo xam ne mu leen tudd ay maas maas képp ku ci xamante ni génn na ci maas boobu li ngay xam mooy doo xam li ñuy tuddee euh, gund ak bedd ko maanaam damay dund la man kase donc Seydina Isa dafa weesu cadre kër gi dem ci cadre boo xamante ni dafay dajale waa village bépp moo xam kii pël la kii euh, wolof la kii leneen la kii neneen la moo tax ci biir Cambérène nga gis koo xamante ni dafay am bàjjenu pël ki am bàjjenu waalo waalo donte du waalo waalo loolu nga gis ni moom li mu gis société bi nit ki nga xamante ni moom say naay saa defar ci société boobu nit koo xamante ni mbooleem ki dund ci société bi bàjjenam la képp kuy dund société bi yaayam la képp kuy dund société magam la képp kuy dund ci société bi xaritam la kon say naay sa loolu la taxawee pour nga xamante ni yar nekk benn éducateur éducateur boo xamante ni bu hors la